tey ñu ngi fi fii ci plage mali Malibu ñu ànd doxantu pour waxtaanee li ba ci kanam incha allah. ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar mesure barrière waaw léegi moom moom moo ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm ci émission bi ñuy wax découverte wara découvrir tey plage yi Malibu mhm. war la waxtaanee li jëm ci littoral bi ak plage yi mhm. di ci vraiment ñu gis la nga nek euh, ko xamni ni yaa ngi bay sawar ak peut-être ñi ñi nga andal ci ci combat bu tol mhm. voilà ñu bay la nga présenter. wu fi waaw jërëjëf bon Cheikh Oumar Sy ancien parlementaire euh, de la 12e législature Tay maa ngi jiite benn kuréel bu tudd observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique kuréel la boo xam ne day saytu lépp lu nga xam ne ci bonne gouvernance la mhm. muy ci pétrole gaz ressources naturelles infrastructure euh, même leadership bi nga xam ne tey war nañu former xale yi jeunes yi bëgg a dugg ci politique ñu tàggat leen ci ay affaire économie mhm. parce que gëm nañ ne ku bëgg a dugg ci politique war nga am benn bagage intellectuel surtout xam sa réew naka la toogee ak lan mooy enjeu yi pour suba. c'est important yooyu tamit ñu ngi yëngatu tamit ci affaire foncier yi euh, di tamit observatoire pour accueillir au maximum de ces capacités capacité les lui jeune donc maa plateforme de plateforme des citoyens actifs pour la protection de l'environnement mmh. et du littoral du Sénégal CAPEL Nous avons un ONG 3D Amnesty International FRAP, ba pare bokk tamit am na benn moument bu nekk fii Géejawaay nga xam ne kii ko coordonné mooy Michel Mendy bu benn moument tamit tudd suñu littoral suñu suuf bu dem ba ay Malika euh, euh, yëmbal ak yëpp ay association bokk ci di xeex pour vraiment li ngeen gis fii préserver littoral wu Sénégal en général. mu mel ni bu ñu wax parlementaire mooy député comme sénégalais yi député lañ gën a xam. Mhm. ñu war na député tey ñu gis ni vraiment yaa ngi ci def jéego yu am solo ak ñi nga àndal. Mhm. Euh, gis nañ taxawaay bu bu am solo bi ngeen ci am ci littoral bi li ci xew. Mhm. Euh, pour yow loolu lan moo ko sabab loolu lan moo ko indi. waaw parce que xam nga man li may jiital lépp damay gërëm euh, l'ancien député l'honorable député Mamadou Lamine Thiam. te mu jiitoon benn kuréel bu nekkoon assemblée nationale bu tudd REPES réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement du Sénégal. Mhm. moom moo. ma tàggat indi ma xëcc ma ci wetam ne ma vraiment bëgg na ma bokk ci combat wu littoral bi li indi nag li indi lii yëpp mooy dafa am benn loi bu tudd la loi sur le littoral projet de loi sur le littoral ba yàgg depuis 2010 moom mu taxaw ci malgré que moom il était du PDS mais moom taxaw pour ni nañu voter la loi sur le littoral pour ñu mën protéger le domaine public maritime ñu dañuy bëgg dégg le domaine public maritime loolu depuis y euh, a ay loi lois xam le domaine national depuis 1964 ak 1976 Il y a Senghor moo ko fi tegoon. xam nga léegi fi taxaw fii boo xoolee ci domaine public maritime lañ nekk. ñoo ñëpp mën nañ fi accéder. boo le littoral de Dakar nag fi nga xam ne ay université lañ nekk nii la meloon ba nit commencé di mais la différence entre fii ak fële. Mhm. mooy fële non seulement la falaise mais la. partie qui est encore. Il faut ñi mën fa sangu mais c'est une place dangereuse mais donc dañuy un domaine public maritime da est ta à 100 mètres de l'eau mais boo M. Dakar ils ont ils ont ils se sont appropriés ça deuxièmement dafa a des conditions d'attribution, Il Il voir que yoo dafa a publique même si nous devons na fekk que ñi mën accéder ci plage bi mais le amul dañ privé. jox ay privé une violation de la loi là ñu jox leen ñu def ko seen yëfu bopp loolu nag ñu koy xeex fexe ba privatiser plage yi alors que la les plages sont ak devraient être accessibles à tout le monde fii mën nga fi tabax hôtel du tere client hôtel yi wàcc dem bali bu sangu delluwaat seen hôtel c'était le principe boo demee foofu di nga fa fekk ay Kaiser wala KFC ubbi mais dañu jàkkaarloo géej client yi dañu ñëw yéeg def li ñuy def différemment comme li par exemple Radisson teeru bi def def mais Radisson moom dafa tëj carrément donc a sax une plage parce que finalement piscine artificielle pour barrer nos pour manier Contrairement contrairement à terre on nous non seulement la plage mais dañu bale les yi yi dem piscine bi à côté wetu wetu wetu une waaw wetu non à côté plage bu ndox une ñi di dem mais une la ba plage bi ñu la plage des enfants Nous récupérons la plage francs ah c'est cher. c'est cher te loo xam ne léegi nit alors que terre bu mënoon tabax sans pourtant mu laal Il ñu au moins l'accès à la mer boo demee Il y a cette possibilité là da ngay gis nit ñi tout le long mais y nañu au moins 100 mètres ba nga y yow hôtel beeg privé beeg keneen ak am nañu accès à la mer sans pourtant avoir de problème d'accord bu mel que le président bi xaw na seetaan loolu président mais xam nga du président bi parce que déclassement du domaine public maritime

ñu may la dara 1 million léegi yow njàgg bu mu la daggalee fii 1 million fii dafoo woon dara nga ne mètre carré bu 1 million immédiatement day impact ci kër yi en face. parce que ñii tamit comme spéculation bi jóge na spéculation bi comme jege na 1 million ñii dañ lay ne ñun 700 000 lañ koy jaay le mètre carré ci 500 alors que avant mu ngi doon jar peut être 100 000 francs le mètre carré donc c'est ça le danger de la rente foncière Donc, tu cher n'importe comment moo la loi le loyer exploser. nga gis Dakar point E cher ah. ça a été une mauvaise politique sous le régime libéral ça a continué ko Macky Sall engagement hmm. mais li tax ñu engagement suivi suivi la loi sur le littoral ba et pourtant premier ministre Boun Abdallah ba mu nekk ñëw na wax na ko Aminata Touré jëloon na engagement bi gisuñu ko mais récemment quand même on a appris que le ministère de l'environnement accélère la procédure pour xool projet de loi bi ndax dinañ ko voté. d'accord ñu ñu leen di xamal ne ñu ngi wa toujours seen émission découverte di waxtaan ak euh, honorable euh, Cheikh Oumar Sy mu mel ni tey par exemple mesures yooyu yëpp ñu ñu jël disposition yooyu ñu jëpp ñu jëloon toppuñu ko. aussi euh, sur le domaine foncier bi ñu mel lu euh, direction des impôts deman aussi ñom euh, mel na ni sen liguey dañ ko lajé dal en quelque sorte. quoi xam nga depuis le temps de Abdou Diouf daanuñu woon Senghor daanuñu woon dugg dégg ay direction des impôts demain peut-être amna ñu ñu doon def jamono yooyu am na après la feeñ mais direction des impôts demain mu mosoo xam kan moy directeur des domaines parce que tay bo xolé direction générale des impôts demain le directeur des domaines moom moo am doole que le directeur même des général des impôts et domaines ah donc ça ça pose problème parce que il gère beaucoup le foncier mais dañu gis ne direction générale des impôts et domaines surtout domaine Les luy suuf Sénégal dañ ciy bokk wala ñu saax saaxe ko fu ñu dagga daggal seen ba dem ba am syndicat ba syndicat yi di réclamer 20 hectares sur le littoral mais yow lan la lan lañ la gënee yow njaga mhm. wala lan keneen koo xam ne sénégalais la wala policier la wala gendarme la wala keneen ba ñoom ñu mën a am coobari ci suuf si gratuitement te yow doo ko ci am ba pare ñoom dañuy jël ci yeneen fu ñu dagg daggal seen bopp jël fa deux wala trois trois trois parcelles jaay deux yi tabaxal seen bopp benn yow tu n'as pas cette possibilité là te loolu tamit day participer ci renchérissement wu coût foncier bi lépp loolu laa tey ci Dakar direction des générale des impôts et da ci da ciy bokk donc te loolu day yàq te tey boo gisee ci kuréel Séné ci Afrique wala ci monde bi il est très rare nga gis direction générale des impôts et domaines amul. amul fenn di nga am euh, agence de l'agri euh, du foncier rural ci yenn dëkk yi di nga am mais li fi am Sénégal c'est exceptionnel. et puis dafay am doole boo xam ne loolu mooy indi corruption bi gën a bëri. moo tax ngay gis direction képp ku ñu nommé ci direction des impôts. day day day bëri doole ba bu fay jógee day am problème. day am ay plainte yu koy topp day am ay kii yu koy topp parce que li muy li dugg ci ay ay njuuj day day day day day day. domaine ci secteur yëpp le Sénégal parce que buñ la falé dara rek automatiquement. waaw mais fi le gëna grave parce que tu gères le foncier. donc tant que kase wuñu ñu tasco tas par exemple les syndicats des impôts de domaines warul am parce que waruñu gérer foncier bu Le wala même bu amé c'est pas pour aller réclamer du foncier. parce que le foncier doit être démocratisé et accès à tout le monde. loolu dañ ko wara dindi def ko benen agence à part def direction des générale des impôts mu gérer rek les impôts. lépp luy foncier ñu tekko ko. nga xam yow ak man ak kenen war nañu mëna accéder équitablement sur le foncier. le foncier parce que tay mëno gis ben médecin bo xamné pendant des années ané mu liggé ba daan munul am sax 150 mètres carrés. nga xey ben Cheikh Omar parce qu'il a des proximités avec le directeur des impôts wala le proximité avec le président de la République ñu may ko 1000 mètres carrés ba ba trois 1000.

La dagg nañ filaaw yëpp xam nga filaaw dafa amul dafa am solo parce que filao, da doon gis nga brise marine bi hmm. buy ñëw ak doole bu muy ñëw day dem ci kër yi donc filao. avant fii yëpp dafa amoon ay filao. mais le rôle des filao, c'était de protéger l'avancée du sable da ngay gis sable bi dem beneen côté bi brise marine beeg yooyu donc boo gisee filaaw sax dañuy penché généralement de ce côté là hmm. c'est régulateur la xool la ñu ngi ne le mais dañuy dem ba léegi di ko dindi di ko dindi alors que dafa amoon politique boo xam ne dañ ko tegoon sur place pour que fii yëpp mu am ay fulaawa dañ ko dañ ko dañ ko dafa am ay nit ñoo xam mettre en place pendant des années juste pour protéger le littoral. mais aujourd' suñu bëgg bëgg gaa yi ak seen bëgg suuf qui seen bëgg ci sans pour autant penser pour l'avenir même des enfants. ñu dagg filaawoo mais xam nga ñi fi tabax le problème c'est que le coût de l'entretien va être très dur. parce que tu dois au minimum avoir un quart un tiers en termes d'entretien. parce que finalement la brise marine dina yàq lu bëri. dina yàq Il faut fer yi fële les xoolee kër Donc, il donc y' a une politique qui est ne tey protéger le littoral ce n'est pas juste nous bañ mais surtout nous bàyyi garab yi pour nous mën a par rapport à l'avancée de la mer. C'est du coup après de renseignement. ñi ay jambar lañu tay gis nga ñu ngi jëm planter dara di mëna def fi dara lo xamné uh-huh. diko arroser diko entretenir uh-huh. parce que gëm nañu au moins que des plantes doivent exister mais bo démé ba légui fenn amadul gantax motax président de la république récemment qu'est-ce qu'il a dit il a demandé à ce que les kuy tabax dinañ la exiger au moins nga planter ñet ñet ñet garab uh-huh. il faut aller plus loin dans toutes les politiques d'infrastructure xolal fi bo fa légui so ben garab amul ben garab amul

d'urbanisation vers des villes vertes hmm. loolu dafa am solo boo gisee léegi boo demee ça ay États-Unis ak yenn ville, yi dem nañu ba ci kaw bâtiment dañ cultiver dañ fay faire ay grappes pour ñu les les les villes de forêt verte wala am na benn mot bu utiliser hmm. mais l'essentiel, c'est qu'avec les changements climatiques on est obligé de prendre en charge l'écologie et euh, la conception de nos de nos villes. C'est hmm. ce ko defee. dëgg la léegi découvrir ici gars seen garab yi ñuy saxal fii. waaw lii moom xam nga. waaw ñi ñooy jàmbaar yi nga xam ne tey eh? ñu ngi koy entretenir. waaw xam nga ñu ngi ñu ngi def lu ñu mën ñu ngi def ndox di ko. puiser di ko arroser di ko arroser. Ah. depuis des des des des des des des années. Eh. ñu ngi ci di ci góorgóorlu. Ah. et ça c' est important. Ah. loolu loo xam ne la tey asalaamaaleykum loolu loolu loo xam ne la tey bu ñu ko defee. mais au moins ils sont en train de préserver euh, kii bi. te lii daf mairie bi daf ci war a jàpp.

C'est parce que Guédiawaye lui, tax koy Malibu une place qui est tellement belle que tu n'as pas depuis jàmmalaay là, là, la wax nga dem mais c'est exceptionnellement beau. mais ça mm. aussi beaucoup de suñu nguur taxawee defar ko normalement c'est des revenus énormes de tourisme parce que net on boit boo la Covid bi mais tu vois des milliers de personnes passer pour faire le sport ici Et ça ça fait épanouir et puis nous aussi à Guédiawaye on a un problème c'est que la densité de la population fait qu'il n'y a pas d'aménagement pour les jeunes pour, les jeunes. le fort, le football ou l'épanouir. Donc il y avait 17h une déferlante humaine. boo xam ne fii rek la ñu mën a expirer seen i expiré seen i coono yi nekk kër yi kër yi ni ñuy xatee ñàkk ñàkk air beeg rek la ñu mën ñëw. awuñu benn espace mais loolu moom espace boobu moom je le dis tout de suite loolu du par exemple mën na bañ a nekk géejawaay kese mais Sénégal yëpp la xale yi kenn amul foofu kenn amul foofu foofu. parce que la politique d'urbanisation a été mal prise en charge. Tay boo les Sicap. Grand Dakar ak yenen deuk ak ak yeneen dëkkuwaay avant ñun buñu ñu nekkee jeune. y' a un espace de football. di nga am fu ngay dem di def yenen. dañ don eggaat fu ne fii tëb fii. mais tay fo dem koñ bi lan ngay am. tu as un appart tu as un immeuble tu as du mal à te garer. Mm-hmm. surtout ba pare xale yi amatuñu fu ñu wàcc ñu def petit camp amul fenn amul fenn foo xamante ni léegi yi sax presque rarement nga koy gis parce que loolu da doon xumbal koñ nit ñi dañ doon football ba ay 13h ñu woola nga dem añu wàccaat 15h nga ñëwaat wala 16h loolu sax mais léegi amatul parce que on a mal géré nos espaces d'urbanisation donc il faut que loolu ñu mën Il intégrer bon y a une politique aujourd'hui de 100 000 logements boo xam ne ministère de l'urbanisme ñu avons koy lancer mais je pense que dans leur réflexion quand leen rencontrer, nous on va prendre en compte tous ces aspects là de sociologie de quoi, pour faire un cadre de vie qui répond à nos besoins vraiment parce que même les immeubles on ne les réfléchit pas bien mais ça crée beaucoup de problèmes plus que de solutions après parce que si il faut des règles quand même il faut des règles Il ne même dans le cadre même de, de, de, des déchets publics, déchets, de la gestion de nos déchets. Si. On voit que l'UCG fait beaucoup d'efforts. Ils font, ils font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts. Oui. Parce que tu le constates, tu le si. vois de visite. On le voit, oui. Mais Tout il faut le aussi que les citoyens participent à la sélection des déchets. Des déchets. dina gën a pour ñu trier ko ñu trier ko. Hmm. ñu mën gérer à l'avenir. Euh, dinañu mën a am moins de déchets yo xam day dem ci mbedd bi wala ñukoy koy loolu tamit c'est des c'est des sensibilisations yo xam war nañ ko def pour protéger notre waaw loolu war nañ ko def parce que sensibilisation bobu dafa bax moy tax ñu organiser dëgg plastique bi pour yor sa mbalit plastique dem plastique verre dem verre ainsi de suite mm-hmm. parce que fi même ci biir plage yi tay da ngay gis sénégalais bu ñew yor mbousam ñew indi fi lekkam et tout mais bu demee après fi la koy bàyyi au niveau des plages c'est aussi defuñu ci yenn. place d'ordure place d'ordure. Alors que mairie, mairie normalement. rôle oh, rôle important pour que tout le long de la plage soit ñu Nous am ay ay ay mbalit. Hmm. du ah, comme une politique urbaine qui intégrer les arbres les les les les les poubelles yooyu yëpp dañu dafa war même les les douches publiques. war ko mën implanter gérer implanter ko. Hmm. parce que boo ko defoon fii nit ñi bu mais boo fi def am na hmm, système d'aménagement aménagement boo mais tu amènes beaucoup de revenus pour la pour la commune de Golf. te loolu bon c'est des propositions yoo xam ne ñun ñu ciy hmm. pour vraiment sur les questions d'aménagement même fële à Dakar nee naa mais li des ko def ko la promenade de Lébou. parce que Dakar. Dakar on ne peut pas parler de Dakar sans le Lébou. aujourd'hui on a tellement agressé qu'on oublie que la culture de Lébou c'est ku fi donc on doit aménager un espace c'est sportif c'est culturel am avons ñuy def lu choses

mais des hôtels sont là à, à cent, des, des, des, des, dizaines d'hôtels. Mais place bi dañ ko aménagé boo taxawee sa hôtel ni des gis ñi des di dawal cyclisme ñi di rollers ñi di ñi di daw ñi di ñi c'est ça en fait la célébrité du alors amul kenn ku tabax voir ces places? donc yooyu tamit parce que source de vie la tey boo les étudiants Le président euh, Senghor Tanon, université de yóbbu ko Cheikh Anta c'est pas parce que dafa espace que c'est parce que c'était proche de la mer de la mer Les professeurs de l'université, ils université ñoo côté c'était pour leur permettre d'avoir un cadre de vie calme uh-huh. et comme il y avait une, une euh, population cosmopolite d'étudiants uh-huh. ça leur permettait aussi le soir bu ñu ñu activités le sport ñu dem di même les couples qui ont des problèmes vont des fois vers la plage pour pouvoir waxtaan garer seen auto gagner expliquer affaire donc l'accès à la mer est une source de régulation sociale psychologique boo xam ne waruñu ci waruñu ko caaxaane c'est pourquoi nous ñu que c'est très égoïste nga nous nga jël ligne pour moi nga ne foofu ngay samp sa kër accès à la mer bi ba pare bu ñu waxee nga ne yow yaa gën a war a mën a am privilège yaa gën a yay yaa gën a yeyoo loolu ki nga xam ne tey yow ak moom yaa leen yem droit ci biir dëkk bi te loolu la ñuy wax ne état bi foofu dafa jouer ci injustice c'est pas parce que je suis l'ami du président hmm. euh, pour ah, de la proximité ou je suis un marabout ou un homme d'affaires puissant que je dois avoir un privilège qui détruit ou qui ne participe pas à faire éclore l'épanouissement des autres loolu ñoom ñi nga xam ne dañu am doole ñoo waroon xalaat ñëw ni nee na ñii dañ leen war a boole ci lii. waaw loolu jar na bàyyi xel ñuy ñaan nguur gi ak képp ku am dooleewu wala gradu taxaw ci loolu ñu taxaw ci bu baax sëñ bi sa dernier mot. waaw di di leen sër euh, di leen remercier si seen émission découverte di la remercier surtout yow si engagement bi ngeen am dinaa ne jeunesse bi rek ne fii Sénégal moom ñi ñoo ko bokk ñun dukkiwuñu dawuñu demuñu demuñu fenn li ñu soxal mooy ñu defar suñu dëkk ba nga xam ne tey.

et puis qu'on qu'on aille vers vers la construction d'un pays stable ba nga xam ne lañ la à l'extérieur dinañ ko fekk suñu dëkk te loolu mooy mooy indi développement socio-économique. jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup merci. suñu émission jeex na c'est moo nekkoon seen émission découverte ñu amoon mbégte ak plaisir di avec ànd ak euh, Cheikh Oumar Sy ancien député kontaan nañ trop ci waxtaan wi waxtaan j'espère que aussi que euh, autorités yi nekk Guédiawaye muy maire bi ak ñëpp ñu warloo ñu def fii dara. gën ko aménager jàppale ñi nga aussi ñi nga xam ñi ngi fi planté ay ay ay ay arbre ñi ngi participer écologiquement ci développement wu plage bi di leen remercier di leen ñaax aussi que ñu gën góor góorgóorlu ci liggéey ba solo bi ñuy def ñi leen di jox dig daje seen beneen émission euh, découverte à la prochaine